asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar Seexna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a doole ak wéram. di ñaanal borom ëtt bi ñu toog di Cheikh Mouhamadul Basir moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacké yal na yàlla may ko fan wu gudd wu ànd ak wér-gu-yaram dëppale man-manam ak yéene mag ñi ba mu àggale naal yi nga xam ne mag ñi yaakaar nañ ko ci moom ci barki Seexuna Ahmadul Xadim ñu toog ci bis boo xam ne nag moom la ñuy waajal te bis bi lépp di Serigne Touba Xaadimu Rasuul kenn ci ak njabootam bokk ñi seen maam njëkk a laxasaayu ànd ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul doon ko liggéeyal ci alquran di Sidi Muxtaar Sill di kenn ci njabootu Cheikh Mouhamadul Basir. muy amal bis bu mag di ko amale ca wokaam mu war a doon juróom-benn fan ci weeru janvier muy bis boo xam ne sant Serigne Touba Khadim Rasoul ak delloo ko njukkal rek la. bis boobu nag la ñuy waajal muy def at mu jot mu dara jaale ko ci kenn ci mag ñi toppoon Serigne Touba ren jii mu dara jaale ko Serigne Naar jenn moom Serigne Baara jenn moom Cheikh Issa jenn kaddu yooyu nga xam ne nag moom la Cheikh Mouhamadul Bachir di yëkkati ngir bis boobu nga xam ne. lépp sëriñ tubaa xaadimu rasul lay doon te dañ koy yendoo ba jant bi so moom la ñuy taatan déglu cheikh mahamadul basir moom cheikh abdul xaadir asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk julli di bokk taalibe murid yëpp ak bokki réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di tàmbale nuyu bi ak siyaara bi ci ak cheikh mahamadul muntaxa ñu fi jëmi sëriñ tubaa tey ci kaw suuf di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak biir ba mboolem naa li nga xam ne am na ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñ borom mooy ko kàttan ak biir mottali ko ndax moom yitteem jëpp génn liggéey Sëriñ Tuubaa lu ëpp ñaar ay bis rek wax na wax ju daw yaram ne ma man yàlla defal na ma tawfeex bëgguma dara bëgguma kër bëgguma oto bëgguma alal bëgguma dara Sëriñ Tuubaa rek laa bëgg moom rek laa mënta ñàkk te naa ci woon tawfeex kon nag kilifa gu mel noonu ku ko am bu baax ndax eh, daa wax ne ndamul wut mooy am ma waaye ndamul amit mooy fexe ba téye ko buñ kon nag li daa faral di wax rek di ko fàttali mooy li yées àdduna mooy ku am ko kilifa gu ma ni Cheikh Mouhamadou Mountakha doy na la sëkk ak yëkkati ko doy na la sëkk ndam doy na sëkk daraja kon nañ ko ñaam yàgg fi tànd biir di nuyu bokk taalibe bi yëpp ak bokk lislaam bi nga xam ne lépp ñoo ko bokk ci nam gën a rafete ni ko alxuraan santaane di fàttaliwaat rek ay kàddu ci bis bi nga xam ne sëñ Sidi Moxtaar Sylla mii moo koy def te daaw ma fàttaleel ko ko nii ni defaat ko woon ne kon incha allah li ma di ko mën rek fas naa yéene di ko ànd ak loola itam la tax rek xam ngeen ne Serigne nekk ne ci njaarim ñaari Moussa ne fa Moussa bu mag ak Moussa mu ndaw Serigne ne woo ma Moussa bu mag ñu andi ma mag ci at Serigne Touba ne du ma ma ndax mii moo mokkal alxuraan kon mooy Moussa Ahmad kon le sëñ bi daa wax naa mbiru sëñ Tuubaa defu lu toppi at yitte pëseef rek moo ci am solo moom mii nag yàlla def na bi ñu yàlla sëñ Tuubaa boole ndax xam ngeen lim doon ci biir yoon yi ni ko sëñ Fàllu waxee léegi maam yo bokk ci ñu njëkk a lax ak sëñ Tuubaa doon ko liggéeyal nag ci li ko gën a itteel muy alxuraan ci la juddu màgg ci yaru ci ñu tàggat ko ci waaye mu jub jub xocc tegi ci yoon te mooy li gën a ëpp solo war a nekk misaalit ci ñim tollol ak ñi ko féete suuf ñëpp ñu xam ne lu baax moom képp ku jugg di ko wuti rek waroo xool fa nga toll ndax dañuy wax ne ku toll ci sa digg àdduna àdduna yow la gën a soxla seytaan yow la gën a soxla waaye suñu borom yow la gën a soxla mm-hmm. ndax bu dee jaamu yàlla yaay gën a am kàttan ak moom koo def kon nag ku mel ne moom mii bu ko suñ borom defee feex bi mu jàng la mu war a jàng bokk fa mu war a bokk waaye la Serigne Touba waxoon kenn ci ay mbokkam sax la ko waxoon ne ko aka aka aka rafet te baax doomi soxna bind ab kaamil bu rafet te xoolu ko dañ daa tudde bopp bopp kaamil bi ñaan xam ko bind te doo ko te doo ko xool kon ñun ñëpp ci loolu lañ jaar <laughs> bind kaamil ba mu jaar te ko te doo te doo ko xool mu ne ko ak ah, ndaw lu rafet ci doomu soxna waaye nag li solo nag mooy fexe ba lay xew ci péew yàlla ba nga di ko xam loolu yittee koy maye kon nag moom mi dañ koy soññu ndax waa góor ndax nit dañuy wax ne li fi àggagut rek kenn wër ko sant waaye dis ko war a ñaax kon cant gi ak ñaax la doon kon nag yoon wii mu tege mu yoonu njub ak yoonu positif ak yoonu ak yoonu jëf ci Sëñ Tuubaa ñu ngi ko ci ñaanal bu baax ndax àdduna képp ku jug jëm ci lu baax rek ni ki nga xam ne ndek imaamul xasaali waxe woon rek mahma azuma al matlub asharf saxuba matlakuhu wa taala tariquhu wa kasurat aqabatuhu camtalaay li bëgg nam kawee rek pakk-pakk yi ak jafe-jafe noonu la demee kon nag li kulli ila chawil ala ula xarakatu walakin asisun li rijaali subuur ñëpp rek jug àgg cër yu kawe lañ bëgg waaye li jafe nag mooy sax ca kon nag ñu ngi koy ñaanal moom yoon wii mu sóobu te ànd ceeg ndaw yu bari ak ñu ko mag sax ngir jub gi yal na ci yàlla gën a dimbale yal na ko Sëriñ Tuubaa gën a gàttan ba yoon wi mu sóobu ndax bu melu toon na war a mel kat nu mën a mën a demee man mm-hmm. kon kàddu yi duma ko sañ yëkkati ndax sëñ Abdoulaye daa wax ne ku yoon ndénkaanu jàmbur. Mm-hmm. du fa neex. nga so nga yóbbu ko mm-hmm. kon lii ndax damaa yor kàddu jàmbur. kon bu ma waxee ci bisam rek. Mm-hmm. la ma ci jublu mooy soñ taalibe yi ñu muy ab royukaay nag ñëpp ko war a royu. ndax laqad kaana la fii rasuulillaahi uswatun hasana kon lu baax moom ñu ko dañu ko royloo. kon moom itam ñu ngi koy ñaax di soññ bokk taalibe yi dëkk Wakaam yi dëkk Ndakaaru. ak yi dëkk ci biir réew mi yëpp itam eh, luñ ci daa taxawee ñu ngeen ko yokk ndax Serigne Touba lépp luñ koy defar rek bu bu bu dëggoo faaw kanam rek lay jëm. li nga xamee dëggu gi nag mooy jëm ko ci kanam. ak yomb ko ndax moom ñun doonuñ ci dara la sëñ Abdoulaye daa wax nan liggéey Serigne Touba yomb na ndax day féetewoo coono ba bàyyee la bàyyee la sag ba kon jëf yëpp dama koy wax waaye dama ba maa koy fàttali te ji ci bëccëg may leen. joxe addiya yëpp jërte na ndax ku ci ne bu buñ woon loola la la Sëñ Tuubaa di doo daa waxoon ne li ma Sëñ Tuubaa defal daa rëy ba mu ëpp te xawma lu ma koy sante mu ne lu ma yëkkati nag lu mu rëy rëy ba bëgg ko sante ma xool ko lépp di jëfam may naandoo dàq ko ci bëggam kon lii ngeen def mooy dàq dàq Sëñ Tuubaa ci bëggam daa kuréel xasida yi fa yëkkati di li mu jësoon te xam ngeen ne Jeysoune Sëriñ Tuubaa yoonam yëpp moom lay jëfandikoo. Mhm. kon loolu mbuutum yoon wi la. kon nañ koy gën a sellal te ci gën a amul teewlu ndax wa isaa xuri alquran fastamiu lahu wa ansitu xaside ci biir alxuraan la ko Sëriñ Tuubaa kon góorgóorlu rek sant Sëriñ Tuubaa moom euh, ni ngeen def sàkkal ko bis la waaye guddi ak bëccëg daa kuy jàng xaside Sëriñ Tuubaa yi gis ni muy sant yàlla. guddi digg bëccëg waxtu lu mu doon rek yàlla ci sant. kon ñun itam nag lu ñu am ci suñ borom rek ci suñ Tuubaa lañ ko amee suñ cant gépp nañ ko jëmale ci suñ mu àggalee ñu ko suñ borom te xam ne sant ko nag mënisu ko. li suñ borom di wax ne dëgg-dëgg sant ma kenn mënu ko def. ndax wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha boo bëggoon a sant yàlla doo xam noo koy sante ndax nooyi gi ngay nooyi bari ko sant sax yàlla la ko defal xel mi ngay am bari ko def yàlla la ko defal xalaat bi ngay am ba ko yàlla ko defal kon boo ci génnee la suñu borom jëf dara du ci def moo tax am na ak gàmm gu ma sàmm am ku togg teraanga yu bari bari indi ko Sëriñ Tuubaa ñu tasaare ko sëriñ bi ne ko loo ci jubloon mënoo ko xam ne xanaa jéem laa delloo njukkal moo ne ko mënu leen ko ndax la nga man ba def ko maa la ko jox kon mënu leen ma sant daana xam nga luy cant gi hmm. mooy ngeen yëg na maa leen ko defal kon nag loolu liñ ko mënal mooy liñ ko liñ mënal Sëriñ Tuubaa mooy di ko ko di ko teewlu guddeeg bëccëg di ko jéem a delloo njukkal ndax moom yàlla noppi na ci mbiram Sëriñ Tuubaa yàlla yëkkati nag képp mootu ko yëkkati képp ku ko jéem a yëkkati nag yàllaa la ci yëkkati hmm. képp ku bëgg a suufeel mbir mi tam yàlla suñu moom moo di suufeel loolu moom dama koy wax rek ne suñu maari basin si daana ko wax nee na nee na ko jàpp ne eh, mbaar mi mm-hmm. eh, xe saw xeeru jënd ko téye nee mm. dindi ko ba xam ndax suñ tubaab moom lépp moo mm. kon nag dinañ gën a góorgóorlu mm. gën a yokk suñu yitte gën a suñ yekk suñ posté te gën a sellal suñ digg suñ tubaab te xam ne suñ tubaab kenn mënu ko ndax sëñ bi laa daanaka sëñ Tuubaa du fàcceel saako déedéet sëñ moom foo ko toll rek fan lay toll. kon nañ góorlu kon niñ ngi ci soñ ñëpp di leen ci ñaan itam yàlla suñu moom gàttanu leen ci. defal leen ci tawfiix te ngeen ko daa sellale ba dara àdduna dugg ci. ngeen gën a wéyal loola ndax lu baax kat li muy baax baax saa su lu baax jugee rek seetaan daa laa ngi ci wet gi mm-hmm. ngir jëm ko yàq. kon nag yow yaay am sag wattandiku ak sag waggar mm-hmm. ak sag bàyyi xel sëñ bi di mm-hmm. boo ko defee rek xam ne sëñ Tuubaa noppi na ci lépp mm-hmm. xam ne bis itam sëñ defar na ko ba noppi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi su ngeen gise jotaay bii dégg kaddug Cheikh Mouhamadul Fadal xam ni ñu ngi waaj bis bu rëy bu mag di bisu Cheikh Seydil Muxtaar Seyxul Asrar muy màggalug Touba Wakam ñu jàpp ko kañ le 6 janvier fan Wakam sëriñ baa ngi ci wu ñëpp bàyyiwul kenn kuy wax ashadu an la ilaha illallah ñu ngi lay woo ci bis boobu sëriñ bi nag mi ngi woo imam bu ratib bu Wakam waaye mi ngi woo itam bu baax monsieur le maire bu Wakam mi ngi woo jaraaf yu sundoy ak jaraafi ak ndey ji réew yi ak saltige yi waaye mi ngi woo xaadir mu ngi woo laayin mu ngi woo tiijaan mu ngi woo ñëpp xam ngeen ni bis boobu Cheikh Bassirou Mbacké moom Cheikh Abdou Khadr mi yor kaddu gi yoonu murit ah war a ñëw nag wakaam ànd koog Cheikh Sidil Mokhtar waaye bu ñëwee itam dana ñëw ci kër Serigne Touba gi ci wakaam xool liggéey bi bis boobu nag kan mooy parrain bi ah sëñ naar yaay Soda Fall sëtub Cheikh Issa Dieng bu baax boobu di Serigne Naar mooy parrain bis ba waaye waaye invité d'honneur ba kan la Cheikh Modou Mbacke Maawul Xayaat ah jàmbaar jooju nga xam ne léppam Serigne Saliou la waaye xam ngeen ni soxna Bali bintu Serigne bu soxna Bali borom fondation bu mag bi xam ngeen ni bis boobu itam bisam la. xam ngeen ni daayira Majmahun Nurayni bu Cees ñoom ñooy invité d'honneur nag ci bis boobu ñuy ñaan nag ah bis boobu kaam waaye Cheikh Sidil Mokhtar nag woon ñëpp. ñaan na ku ñëw ci bis ba nag Serigne Touba sedd la waaye ku mu sedd nag boo dëppee sedd say mbokk bis baa ngoog le 6 janvier ca Wakaam bu ko kenn wute wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu wa shifaau